noonu mbokk internet yi bàyyi xel SBT amaan nañu mbégte ak kontante ñëw fii nga xam si ni moom mooy si euh, xam ne moom mooy yëmbal seet koo xam si ni macha allah miin ngeen ko ci kër gi muy Mawlaay Abdou Aziz Ndiaye euh, bi nga xam si ni macha allah euh, xam ngeen ko ci SBT bu baax a baax waaye mu nekk nit koo xam si nit ku baax koo xam si nii macha allah nit ko amal njariñ askan wi nga xam si ni moom la ko yàlla booleel la. rawat na askanu yëmbal ndax euh, miin ngeen euh, euh, li nga xam ne moom mooy kadmier bi nga xam si day am yëmbal ren nag nekkoon 22e édition bi macha allah ñu màggal ko mu passé si jàmm salaam tey ñu ñëw seet ko fa seen seex mu waxtaan wax dëgg yàlla ndax bëggoon nañu ànd moom ci bés bi waaye ku nekk xam na dëkk bi xat na xat boo xam si ni fa tabaarakàllaa moom nag day kenn si ñun moo tax si Abdou ñu bàyyi la nga nuyoo mbokk internet yi. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bañ sant yàlla julli si yonent bi ñu ngi nuyu ñëpp di ñaan yàlla di gën di ay leer ci mawlaaya abil abbas ahmad tijani radiyallahu anhu ak mbooleem olofa am yëpp di nuyu àdduna bi yëpp waaye di nuyu tamit alxalif général de Tidjani Serigne Babacar Sy Mansour ak Serigne Mountakha mbake ak mboolem xalifa yi général yi fi nekk yëpp ñaan yàlla defal leen jàmm ak sutura ñaanal Serigne Mbaye yàlla na yàlla defal ko sutura mooy tamit tam jumaam ji yàlla na ko eggale ak jàmm ak sago di nuyu ñëpp di nuyu waa SBT Média à travers euh, euh, les médias ak mboolem média bi yëpp di nuyu di leen jaara di jaara waa yëmbal yëpp di nuyu suñu wayjur yi yàlla na yàlla yàggaleen te taxaw leen nuyu suñu wajur bi nekkal suñu paam Mbaye Ndaw bi nekkal fii ci yëmbal ndawen yar ñu tabarakala nuyu suñu paam ngañ nuyu tabarakala adduna bi yëpp nuyu nag waa spécial kat mi Mawlaaya Cheikh Ahmed Tidiane ñoom da leen di beral nuyoo macha allah di nuyu ne yow Euh, maas di nuyu baax a baax di la jox sa cër di jox sa wàccuwaay di nuyu ñëpp par ah, tabarakallah macha allah si suñ koy tàmbalee rek waxtaane mooy kadmiya bi nga xam si ni dégg nañ ko booba léegi di ko dégg ñi nga xam ne mii nañu baatu kadmiya tey boo ñu ko doon tekkal si wàllum olof euh, lan lay firi ak ban taxawaay la am ci li nga xam ne moom mooy tarixa Cheikh Ahmad Tidiane Chérif waaw laaj nga laaj bu am solo waaye laaj nga laaj bu xóot ndax euh, al kadmiya dafa nekk loo xam ne si wax nañ ne kenn xamu ko eh, ndax grade la boo xam ne si wala fauteuil la boo xam ne si wala caq la boo xam ne si yàlla na dogal na eh, Mawlaaya Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Sirif la ko yàlla jagleel te deetu ko jagleel keneen nag ku dul moom loolu nga déggoon ni ñu ni Cheikh jël na jaa ñaari ñaari ñaari tànkam yi teg ko ci mbooleem wali yi mi la dun aadama ilaa na fi e ñaari tànkam yooyu yooyu ñu wax nag ñaari dëggam yooyu ñu wax nag mooy alxatmiya wal katmiya xatmiya mooy nekk ci weeru muharram katmiya mooy nekk nii ñoom ñaar yaakaar naa rawante nañ ñaar fukki fan ak ñeent e tabaarakallahu e, loolu mooy katmiya waaye nekk na li nga xam ne si dafa nëbb ba kenn mun si xam dara wax nañ sa cawtiyaan sax war nañ ne xamul gul li nekk ci biir boîte bi jox nañ ko boîte bi mais xamul lan moo nekk ci biir boîte bi d' abord mais téye na ko xam na ko am na grade bi waaw moo tax kan mi kenn mënu koo définir ba ni lii la waaw da nga cay da nga cay xamee rek mais kenn mënu ko xam carrément ndax borom mii mi ki ki nga xam ne mooy borom sax di Mawlaay Cheikh Tijaan mënu ko xam ndax dañuy xamee ci moom waaye kenn mënu ko xam incha allah te kenn du ko xam ëllëg yow ma xam lañ koy xamee ndax moom moo waxoon ni laa yaxrifu ni xayru jaddi kenn xawuma ku dul sama maam tabaarakallaahu loolu moo ci nekk kon nga xam ni e, nekk na loo xam si du lu ñuy du lu ñuy du du lu du lu loo xam si ku jug xam ko e, loolu nag lañ doon yàlla suturaal ñu ñu koy màggal chaque année depuis quatre-vingt-dix-neuf ba ñu ngi koy màggal waaye daaw ñu ko màggalee nag comme nii ndax e, yàlla ñu dogal rek ci ñu ñu xàmmee rek bëgg Cheikh Sidi Ahmed Tidiane yi bëgg ko loolu yàlla dogal si ñun xamuñu nag nu ñu dikkee waaye xamuñu parce que ñun biñ koy jëkki taxawal sax xamuñu lan mooy lan mooy maanaam lan mooy sens bii nii comme fooguñu woon nii nii mi mel ni dana mel noonu dañoo xëy rek ni dañuy def daal ñun dañuy taxawal kat mille daal. quatre vingt dix léegi yàgg na boobu su ma jubal ñi nga am 19 doon def mooy sunu su ma xëyee rek jàng amaayat ak suuf tax boobu yàgg na jekki-jekki at yi di ñëw ñuy jàng yaasin ak suuf jekk-jekk ñuy jàng kaamil bi ñu ko jàngee nag wut suñu biscuit lekk. jekki-jekki di si wut wut sunu ñetti xayit ànd kook ñoom jekki-jekki ut ay sunu bokk daayra di euh, bokk kook ñoom defar ataaya defar kafe léeg-léeg defar meew defar ba mu génn kër ga ñëw si kër gi ma yaroo ñu jekki-jekki def ci ay beñe li àgg na xam naa suñu mbokk jëbëri moom seen xol sedd na ci li <laughs> nga xam si noonu la maanaam programme bi taxawee macha allah mm-hmm. ah? maanaam programme ni mu taxawee noonu macha allah nekk lu lu am solo comme ni nga ko waxee 99 ak léegi mhm. ak tàmbali bu ndaw bi nga xam si ni tey moom nga ko tàmbali woon ak tey daye bi mu àgg macha allah mu mel ni que loolu dañ ciy yëgée ne liggéeyal yàlla suñu borom subhaanahu wa taala moom euh, amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am macha allah mhm. waaw tànk kanam rek la am ndax euh, ñun dañoo aadawoo lépp lu ñuy wax wala lu ñuy jëf wala ñu bokk ca rek de bu munte nekk yàlla kese rek dañ koy bàyyi moo tax depuis lors ba tey mos kenn mosul am ñu jox la carte invitation wala carte soutien wala defar ay carte barkeelu mosul am Cheikhu Tidiane mooy financé li ciy dem moo tax béy na sax léeg-léeg ñu si bëgg a participer buñ dikkee ñu lànkal leen ndax seen alal waru saa dem wala boog waru gu cay dem xam boo nee waru see dem rek day mel ni abadan la mais waru gu cay dem moo tax ndax nag eh, dafa am ñoo xam ne si eh, eh, seen mbir la cay dem ñoom ñoo koy fàggul seen bopp. suñ la ko waxee dañ la bëgg wax ni la eh, magu yàlla yi nitu yàlla yi lépp luy dox seen seen mbir lépp lu ñuy def tamit yàlla yi kese doon pas-pas piir la cay dem ñoom ñoo ko indi seen bopp moo tax léeg-léeg gars yi xaw ma classe tuuti léeg nit bëgg maa jox nag ma gàntal nit bëgg maa jox dara ma gàntal ñu nii ci man la fekk nekkul ci man xëy na peut-être la ma cay yëg ak ñoom lañ cay yëg du benn wala boog la ma cay xamee ak ñoom lañ cay xamee du doon benn moo tax duñ ko mën a nangu ndax boo ko nangoo rek am problème ak ñoom te yàlla kese moo tax nga def kon nag lu ci ne di def rek na nekk yàlla kese te ñoom ñooy ñoom nag ñooy jël seen i nit indil la ñoom moo tax moo tax moo tax ku ciy ñëw day xam ne lii yàlla kese la waaw gannaaw du ci am ak incha allah waaw mu ngi noonu SBT Média dañu wax ngeen abonné ba seen tous cloche notification bu ko defee vidéo yi nga xam ne SBT mi ngi koy dugal ngeen mën a baax euh, nga fa macha allah euh, euh, ñaan suñu borom yóbbuwaa ñu ay ati at at ci la ñaanal yow Mawlaay Abdou Aziz ci 4 xam si ni macha allah muy 22e édition bi nga xam si ni yaa ngi koy def suñu borom gën la cee taxawal ak mboolem ñi nga xam si ni ñu ngi koy ànd ak yow ndax macha allah fu nekk la nit di jógee di ànd ak yow bi di ko màggal fii nga xam si moom moo di yëmbal macha allah mais ginnaaw ginnaaw ginnaaw loolu ñu gis ne am na ñeneen ñoo xam si ni ñu ngi si jàpp bu baax a baax a baax ndax comme ni nga ko waxee am na ñoo xam ne Cheikh Ahmed Tidiane moo leen tànnal ñu war see jëf am na ñoo xam ni dañ ciy bëgg jëf waaye seen jëf euh, maanaam seen su maanaam ki nga xam ne moom mooy borom liggéey bi nangoogul jëf ji tey euh, ni boo waxee loolu maam naka la ko nit mën a déggee bu baax a baax si parce que nit ñi ñi mel ne man seen xel dafa gàtt waa xam nga xam nga nit yàlla yi lépp luy dem ci ñoom day nekk lu set day nekk lu sell day nekk lu wér day nekk lu lew day ngay dégg ba moo tax nitu yàlla du caaxaan de da ngay dégg ñu la kalaamul aluyaay lastu af amu li ànd ni ana ana waxum xumu maanaam ñoom seeni mbir ñoom la seeni wax ñoom la seen i lépp ñoom la seen lépp ñoom la kon donc kon ku ni ñoom nga bëgg a taxaw foog da am connexion sa diggante ak ñoom dafa am connexion tey jii sa appareil bi su amul connexion doo connecté léegi ñoom nag boo nekkee si ñoom yàllaay dogal bu fekkee ànd bi sa pas-pas si ñoom dëgg la da ngay am connexion ak ñoom léegi connexion boobu ngay am ak ñoom nag mooy waral yoom luñ bëgg da koy xam luñ bëggul da nga koy xam te boobu nag caaxaan caaxaan yóbbuwu ci nit ndax nag eh, tey bu amul connexion doo mën a connecté doo mën a woo kenn par whatsapp doo mën a woo kenn par eh, internet donc ni mu amee noonu ci wàllu wàllu àdduna noonu la amee tamit ci wàllu nitu yàlla yi loolu beneen beneen domaine la beneen beneen mbir la moo tax ñoom ñooy segg ñay jël seen alal di ko ci def te alal jooju ñoom ñoo leen koy jox ñu indi ko ci tàggatal la ay nit la moo tax damay wax ni eh, lépp lu nit di def na ko yàlla lal su ko yàlla lalee rek la yàlla mooy tàggat la muy tàggat jaay la fa mu ko jaay la ba mu ak si yow moo tax yàkkamti baaxul ndax bu yàkkamti woon amaana ñu tuddee ñu fekk parce que léegi nga gis bis ñu jël bis tuddee ko nit ayul jël def ci ay soutien aayul waaye ñun taamuñ boobu ñun bi ñu taamu mooy poche Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Chérif di génn di ci dugg te it sax ay noonu lay demee nag te ilaa yow mi ba ba ba adduna bi tukki incha allah rabbi noonu lay demee tax yàlla kesee ko lal parce parce kesee ko lal moo dama koy wax gaañ yi leen lu ma amul ndigal laay tét mais lu ma xas am ndigal saye damay jaar si ci kawam jàll dem te day nooy népp nag waaw day nooy népp comme comme comme comme éponge léeg-léeg gars yi dañ ndax li ciy dem financement bi ay ñaari fan parce que ajjuma samedi wut ñaari nag leen di ko wut yeneen yeneen yeneen yeneen yeneen yu njóobeen yi di soxla ak siween yi dafa rek baal ma yooyu yëpp dara manqué wul ku ñëw kontaan ah tabaarakallaahu loolu timitam du caaxaan lalu ko de ah. caaxaan lalu ko tamit nekk fi woon bi avant avant bis bi di euh, di euh, ndokkeel Sëriñ Muntaxa Mbàkke baax a baax ci màggalu maamam gi yal na yàlla yokk ko fi yàggal yàlla nangul ko e nangul mboolem ñu demoon yàlla dafa leen jàmm ak sutura mm-hmm. Mm-hmm. mu mel ne que bés bi wax di yàlla wéetoo ci am na si ñoo xam si ni jàpp nañ bu baax baax a baax mm-hmm. booba léegi ah la yëkkatil di la kiilee nga xam ne boo bëggee yëkkati sa ñooy la bàyyil defal la lépp macha allah jaaru na it wax dëgg yàlla ñu ñoom soxlawuñ sax nga sant leen gërëm leen waaye comme lu mel nii bu xasee ba am rek SBT Média moom bu ñëwee vraiment jaaru na ñu sant leen gërëm leen waa cant gi moom ki ma si njëkk a jiital mooy maa mooy ñu ngi dolli sant yàlla subhanahu wa taala bu baax a baax a baax a baax a baax di dolli tamit di sant sallallahu alayhi wa sallam di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yokki ay leram moom yonent bi saa salaam waaye nag di sant Mawlaaya Cheikh Seydi Ahmed Tidiane waaw loolu leneen la duñ ko mën wax fii mais moom dégg na li ma koy wax ñu ngi koy dolli sant bu baax a baax a baax ndax nag moom moo ñu moom moo ñu bëggal boppam loolu yàlla dogal beneen domaine la moo tax du ñu see sori te xam nga nit ñi dañoo xaw a doy waar da ngay waxee nit ñu déggee ko ne indi la jafe-jafe moo tax yu bari ñu koy xaw a ragal donc di bis topp tamit ñu ngi sant suñu yaay soxna Sarr baax a baax suñu yaay bopp ku ñu dooleel la ñaanal ñu jàppale ñu ci lépp dindi alam di ñu jox e léeg-léeg muy defal nangam defal nangam bala nga dem ci bis bi nangam nangam loolu tuutiwul loolu wajur baax a koy def toujours mu ngi ñaan ndax bis bi réussir bis bi nag tabarakallahu yàlla dogal la surtout la fañ séntu woon tey seet gi ëpp na koy dem ëpp na ko ëpp na ko ëpp na koy dem di sant suñu pam do sant suñu magu yëmbal yi waa jàkkee ndawen suñu ñoom Baye Khalifa Diop ñoom Baye Cheikh Badiane ñoom Pape Ngagne Ndiaye ñëpp ñu leen sant di sant nag spécialement waa spécial Katmiya ndax ñoom lañ àndal liggéey bi jël suy dërëm suy dërëm boole ko mu doon dara ci bak Cheikh ñu def ko gan ñëpp kontaan sant fi nit ñi nit ñi moom fi ñu jógee yëpp mënu ma ko tudd waaw naan dama naan la presque li li ëpp ci dëkk yi Thiénaba ak feneen ak feneen ñëpp ñëw nañu ñëpp ñëw Dakar Médina Plateau Guédiawaye pikin ñëpp ñëw nañu Sénégal ñëpp ñëw nañu ma kontaan ci ñoom baax baax di sant nag baax baax nag sama sëriñ sëriñ maam Malick si Mansour maam Malick sëñ Mansour ay may woo juróom bu góor borom daara ji borom daara ji sëñ Babacar si may woo juróom bu góor sëñ sëñ Babacar sëñ Xañ Malick mooy tabarakallahu way ñu kontaan ci moom lool ndax moo ñu jox ndigal ñu doxal te ko ku mu jox ndigal am nga ndigal ndax borom ndigal la après tabarakallahu yëkkati eh taba luñ ci tur la woo jox ñu moo tax it bis ba tabarakallaahu ah ah sant nañu yàlla de sant sant nañu yàlla ñu kontaan ci moom bu baax a baax ndax sëriñ la boo xam ne si macha allahum la aduru li ñuy doyee sëriñ mi ngi ci moom macha allah yàlla bu ko cat jitu yàlla na ko yàlla musa si cat yàlla na ko si cat fu ñu toog laa koy ñaan man na ko ñun yàlla bu buñ bokk ci ñi lay war yàlla ñu bokk ci ñi lay catu ndax xam nga cat dafa dafa yeme mhm. te cat bi gën a bon mooy sa soppee mhm. dina wax ci yow ba catu la cat boobu du gaaw a moo tax nit da nga ko sopp sopp da nga ko waxal jàmm di ko ñaanal yàlla moo tax di di wax wax bari def defal ko ñaan moo ko moo gën ak mbooleem ku mu bokkal diina ji di liggéeyal diina ji muy tijaan muy xaadir ñëpp a ceem yàlla na yàlla sagal leen sutural leen maa koy sant di ko gërëm ndax siggil na ma ñaanal na ma taxaw na ma ndax yëmbal ni ma fi mel nii ginnaaw yàlla ak sama ñaanu wajur yi tabarakallah moom moo ko jëf moom moo ko jëf ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ak ci barke maamam waaye nag duñ ne danaan laaxir wa ndax maamam noonu la defoon sama maam kon moom bu dikkatee def ma noonu ah, ah tabaraka la naan saan saan wa demoon moo dell ci waat rek looloo looloo ma ne ànd ba na ba ili na rek incha allah bi di sant timitam sunu maire monsieur le maire Bara Gaye ndax tabarakallahu di ko baax di sunu mag di sunu xarit eh, waxe ma nag politique ndax nii dañu gaaw ci boo waxee ñu diw faral man ñëpp laa jàmm man tey lu ma kenn samay bunt donc waaye nag ku def ñu wax ko mhm. Bara Gaye tabarak taxawu na bis bi def ci ut nag bu baax jox ko joxuñu ko sax Cheikh Tidiane la ko jox waxoon naa ko ma ne yaa ngi koy joxe mais Cheikh nga ko jox kon li nga bëgg dee ko Cheikh Tidiane di sant tamit Jibril Diaw Jibril Diaw tabarakallahu musala meer moom tamit jël na alalam def ci ba seeg sees yëpp moo ko def te dafa gaaw ñu barki dem mu daggaloo lépp ñëw fanaan fi ba ba set loolu tuutiwul soxna Ndeye Sukay tabarakallahu moom tamit am e, di madame la mairesse e, e, yàlla na ko yàlla taxawute jàppale ko moom itam de alal ju baree bari bay def ci ak Serigne Yoro Dia gars yi tedd yëpp spécial cabinet bi tamit ñoom Soxna Xadika ñoom Hadji Mbaye Dia président bi Ahmed Fall ñëpp kontaan nañu waaye yëmbal ñi ma dëkk ñëpp te màggale wuñu ñëpp tabaraka ci bis bi wé wéetu daal wéetu ma kontaan naa ci ñëpp sant naa ñëpp sant samay njaboot gi maam tamit sama doom yi ma yàlla dénk ñoom itam jógeen daara de ñëw ci bis bi taxawu bis bi ñoom itam tabaraka la yàlla na yàlla def sutura bañ ñoom bañ dem bañ téyee cabinet bi di ko doxal nu mu leen neexee ci quartier ak ba xam incha allahu rabbi di sant yow timitam bu baax daf ngeen ciy teewu baax a baax a baax a baax waaye loolu nag tuutiwul nag tuutiwul ci Cheikhul Tidiane gis na ko te fu mu bëgg mu yegg fa dana fa yegg lool ah, loolu loolu yàlla dogal xam naa loolu <laughs> moo tax may di ñaanal di ñaanal ñëpp rek su ma nee spécial 4 milliards nag jox tudd naa ñëpp rek mhm. du ma tudd ki bàyyi kii tudd naa ñëpp waaye nag di gërëm ki doon taxee bés bi di sëñ Ousmane Niang ak Tidiane sëñ Ousmane Niang al arifouni bi la macha allah allahumma la adru yàlla na ko yàlla dolli kàttanal yàlla na ko fi yàlla yàggal te ko fi ak Mouhamad Diaw mi nga xam ne si tabarakallahu moo yoroon microcentrale bi jiite wayi ak mbooleem waykat yi ñoom Abdou Aziz Ndiaye ñoom Xaj Ndiaga ñoom Khalifa Ndiaye ñoom Issa sama rakk yëpp ñoom mën a ñoom ñoo bokk bàyyi ñoom ñëpp ñëw nañu suñu taaw papa ñëw na Bàcc Ndiaye ak njabootam Jamil Ndiaye timitam tabarakallahu sama mag sama taaw yaay bu góor chaque année mu wut na cent mille jox ma chaque année nag chaque année moo tax dama naan gars yi man ku may jaay nag xamoo li xew <laughs> xamoo li moo tax moo tax moo tax soo gisee euh, léeg-léeg du bëgg di jaxasoog ñu bari da ngay gis ku la defal benn mbir bu ndaw yaakaar ñoo la ko defal te xamul ni boppam la ko defal wala mu ciy rëy rëylu fii nag lépp luy ngisal du fi dugg lépp luy jëm ci wàllu ngisal du fi dugg kon tabaraka lépp lu ñu fi encaissé rek Cheikh Tidiane ko gërëm lépp lu ñu fi jël Cheikh Tidiane ko gërëm te fi jël tamit lenn ci bopp ñëpp ñëpp koy bokk tabaraka laahu ci barke Cheikh Ahmed Tidiane yi mu ngi noonu euh, Mawlaay Abdou Aziz Ndiaye la macha allah euh, di ko ndokkeelaat bu baax a baax di ko ñaanal mu àggale sago macha allah di ñaan bés bi nga xam si nii euh, màggal nañ ko keroog li nga xam ne moom moo di samedi incha allah ñu teew kay ati ati at téeméeri at yoo xam si ni yu tàmbali ren ah macha allah di ñaan suñu borom defal ñu fekk ko ak wér ak xéewal képp koo xam ne rek ñëwoon nga ci bés bi aaja boo fi andoon yàlla na ko yàlla faj yàlla na ko yàlla saafara muy jàngoro muy soxla lu doon rek ah, macha allah ñi amoon yéen ñëw te suñu borom dogul ñu ñëwit yëpp bépp yéen a xam ne amoon nañ ko rek yàlla na mot di ndax àdduna la a mu ëpp fay jëf am na ñoo xam ne a ñëw waaye ñëwun waaye am nañ ci yool bi nga xam ne nii keroog moom lañ doon màggal muy spécial kadmiya bi nga xam ne nii dañ koy màggal fii nga xam ne moom moo di yëmbal di am mbégte nag bu baax a baax ndax yow kenn nga si ñun mënuñu wax si yow ndax ah, dafa am lu bari loo xam ne moo nu boole ah ñu yàgg ñoo taxaw ci yu bëree bëree bëri di leen wax ne SBT Média mi ngi noonu ah, ñu seet si woon xam si moom mooy Mawlaay Abdou Aziz di wax na ngeen ñaanal ma ko ndax moom suma nit la sama xarit la sama mag la sama lépp la macha allah na fi jàmm yàgg Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg ah, benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar waaw kenn mënu koo xar ñaar képp koo xam si ne rek ah, bëgg nga réew mi ak rawat na waa xam ne si nii am na ñoo xam ñu ngi bitim réew waaye kat may bi wax di yàlla am ànd nañ ko ak yow macha allah def nañ ci bu baax baax taxaw nañ si waaw waaw waaw waa États-Unis ñoom day ñang waa Espagne ñoom Mamour ñoom Ousmane Ndiaye sama rakk tabaraka ñoom Adama Seck ñooñu moom tabaraka ba Australie ñoom Abdou Dia euh, Suède fu ne am naa fay nit Angleterre ñoom euh, Kadiatou ñoom euh, Aminata Ba France tabarakallahu ñoom ñoom ñoom ñoom Yacine ña fa am duñ jeex duñ xaj te kenn ku ci nekk da nga làmb sa wërsëg jox ko Cheikh Seydi Ahmed Tidiane loolu tuutiwul kon maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp diaspora bi yëpp nag ñoom ñëpp ak ustaas yi fi nekk yëpp nag maa ngi leen di jël sant di leen gërëm yàlla di leen gërëm di leen ñaan yàlla baax a baax a baax a baax a baax waaw allah